asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sports 221 dañu koy door mbirum Keita Baldé l'international sénégalais bi le amal na retouram ci entraînement collectif gannaaw bi nga xamee ne jamono yëpp dañu ko ajoon voilà ndax li nga xam ne moo fi jotoon xew jël ñu ci dellu si ay weer a ngi nii moom Keita Baldé footballul léegi nag ñu gis ne dinga maam dafa dellu si waat ci entraînement collectif yi loolu nag soo ko gisee mooy ne léegi tey mu dellu si waat ci match yi nga xam ne Spartak Moscou ñoo ngi koy amal ab diir a nag mu doon tàggatu waaye moom képp la woon ndax kat mënul woon bokk ci wàccaay yi nga xam ne équipe boobu ñoo ngi koy amal ndax dañu koo aj mondial bi moom Keita Baldé démb nag gis nañu image boo xam ne mu ngi wane ne moom mu ngi doon suivre li nga xam ne mooy matchu Sénégal bi kon xelam yëpp mu ngi ci coupe monde ba voilà waaye xibaar bi neex daal mooy retour am ci entraînement collectif yi moom fi ne am na te loolu soo ko déggee mooy léegi tey mu mën a bokkaat ci match yi suñu gayndee ñoom amal nañu tey ji beneen tàggatu li waajal match yi war a dox seen diggante Qatar ak Équateur ci àjjuma ji nag la ñu war a football ak Qatar maanaam fileek ñaar jàpp ñetti fan ci kanam mu nekk match boo xam ne final lay doon final ndax match boo xam ne da koy dóor ngir mën a dundee yaakaar ñu dóor la nga takk say bagage voilà loolu rek lañ ko mën a jàppee ndax match boobu moom bu dee Sénégal perd na ko moom daanaka amatul dara lu mu fay def loolu rek dégg nga maam euh, kon loolu mooy xew Qatar la Sénégal war a footballal ci ji tey ji tàggatu boobu ñuy amal nag am na ñoo xam ne bokkuñu ci muy ñi nga xam ne ñëpp ay titulaire lañu woon niki démb ci match bi ñu doon joué contre ñi di waa Pays-Bas kon ñi nga xam ne ñoo doon remplaçant yi ñoo ñëw ak ñi nga xam ne football ñu woon ñooñu moom tàggatu nañu wala waaye ni ñi ci des ñoom ñoo ngi ca saal ba bu ñu sukkandiku ci kayiti xibaar yi ki nga xamne moy Cristiano Ronaldo Manchester United jeexna sey ba tasna dal dana ñu deggo wala waxtaan nañu ba deggo ci jamm ñu dal di takalako ci jamm Manchester def nañu ben communiqué di dal di gërëm Cristiano Ronaldo dal di koy sante ci and bu rafet bi nga xamne ant nañu ko waaye Cristiano Ronaldo mum tam bin na ab leetar dal di koy post ci li nga xamne moy social media bi dal di jaajeufal ñi nga xamne ñoo di fanti ak ñi nga xamne dañu koy safo ak li nga xamne moy yek yek bi mu am ci équipe bobu di Man United manam ku nekk dal yaangi ragal sa morom gannaaw di wax wax ju rafet lool limuy tekki moy taggo ci jamm amna ne nii moom tàqale ko nañ ci jàmm lii nag mooy wane ne Cristiano Ronaldo jamono bi mooy benn joueur boo xam ne mu ngi ci coupe du monde ba te amul club voilà Chris amul club mu ngi ci coupe du monde ba kon nag mën na wane lu leer ngir war a amaat beneen club ci li nga xamante ne mooy mondial boobu lay kon jamono bi Chris nekkatul joueur Manchester United loolu moom lu officiel la coupe du monde boobu le nag tey ji am na jongante yu fa jotoon xew waaye nag ñu gis na tey moom wutee na ak démb lool démb bii dañoo bari lool démb mën nañu wax ne fukki bal ak nangam dugg na ci journée bi tey nag ba ñu yeewoo ci suba ba tey ñetti bal la ñu gis mooy match bi doon dox ci suba diggante Argentine ak ñii di waa Arabie Saoudi waaye daal gis nañu ne Tunisie joué na fi moom it ci bëccëg daal di def match nul digganteem ak Danemark mu nekkoon match bu métti nag kenn dugalul maanaam ndam dimul ndam dikkul voilà Tunisie gu am jom la ñu gis fexe nañu fexe fexe ba dégg maam dugaluñu waaye itam encaissé wuñu kon foofu mën nañu wax ne ñoom génn nañu ak benn poñ ci jongante gi am beneen match boo xam ne xewoon na sànq doxoon diggante Mexico ak ñii di waa Pologne jongante googu itam 0-0 la li nga xam ne nag moo ci yéeme mooy ki nga xam ne mooy Ochoa di màggat mile nga xam ne ku ñu ràññale ci Coupe du Monde seetlu nañu ne Coupe du Monde yi nga xam ne weesu na yi ci ëpp yi weesu nii moom daf daf ci dal di teew te toujours bu ñëwee dafay wane boppam moom nag jamono bi xaw na màggat mën nañu wax ne daa daanaka sax su amul chance bi mooy dernier coupe du monde boo xam ne xëy na dina ci bokk waaye li muy màggat màggat dafa dal di li nga xam ne mooy benn penalty boo xam ne Pologne am nañ ko Lewandowski boo ko dal di dóor waaye mu dal koy dippi dégg moom kii di euh, Ochoa voilà Ochoa moomu la dee moo dal génne ñi nga xam ñoo di Mexico kon ci guuta googu léegi ñu dal def match bu metti la woon nag bu neexoon ndax bal bi daw na bu baax a baax Mexico ñoo gënoon bëgg match bi ne sukkas ne ko nañu rek ci li ñu li ñu def ci passe na lool lool lool nga xamante ne moom lañ am ci occasion bu ñuy xool ñoom ñoo ko ëppale ñi di Pologne waaye loo ci mën a dégg daal seddoo nañu poñ yi ku nekk benn la am kon ñaari match nul xew na tey ci jongante yi nga xam ne xewoon na voilà geneen jongante gi ci kanam lay doon diggante Australie ak France ci kanam tuuti Arabie Saoudi googu nga xam ne moo dóor Argentine ci suba kayit xibaar yi biral nañu ne fi mu ne nii moom fet moo am ci dëkk ba mbégte mu rëy rëy moo fa am gannaaw bi ñu amee ndam tey ji kayit xibaar biral nañu ne nguur ga dey dal dinañu dogal ne suba moom férié la suba amul liggéey amul dem tool amul jàngi amul dara ñëpp nañu dem toog seen kër yi dégg nga noppalu bégee fu waay neex dem dégg nga maam bégee waaye daal liggéey moom amut suba férié la voilà li ñuy tuddee public holiday moom la ñu def foofu la ci Arabie Saoudi gannaaw li nga xam ne am nañu ko tey ci kaw Argentine match boobu nga xam ne ñoo ko doon joué sax ñoom Arabie Saudite ak argentine ñu gis ne match la won bu bari nit daanaka man nañ wax ne ab final la won ndax stade bi kat juroom ñett fukki junne ci ay nit lay def juroom ñett fukki junne ci ay nit waye dañu ko duy ba mu ëpp manam dafa fess bay touru ndax juroom ñett fukki ak juroom ñett junne ci ay nit ba lu ko ëpp sax ñu ngi won ci stade bi kon man nañ wax ne capacité bi sax du romb nañ ko loolu nak limi muy moy match bobu ñi mu lon bari nañ lool voilà kon 80000 personnes la stade bi wara jël waye 88000 personnes ba lu ko ëpp ñu ngi won ci stade bi moy jongante googu doxoon diggante ñii di Argentine ak ñii di waa Arabie Saoudite tënk la ci xibaar gaay yi continuer leen di suivre c'est le sport 221 the best sport news channel